xar naa ni moo géet ma ngay déglu moom laa doon xaar mu yeewu moo yaa ngi déglu moo géet sama waa ji jàllo jéeri Seydina Mohamed lañu ko dippe moo foo ka bari jom waaye moo géet mii fu mu ne ma nga Las Vegas wala ma nga New York moom moo doom yaay Babacar Diaspora doom yaay bàcc gumbalo ak xaadim aan doom yaay Sankara Mbay doom yaay Viviane Chidid waaye moo géer fu mu ne ay moo ay moo mooy borom millionnaire en dollar milliardaire ci CFA waaye billionnaire ci franc guinéen moo ragalut nag yàlla jàmmam yàgg moo man moom mënu maa force sama ndigal day met dee ma ko jox rek ma def sama poche man moom réew mi kenn du ma aye ñaan ndax miin nañ ma ci ñaan moo may ma moo <laughs> laay dëgg la